mbokk internet yi bàyyi xel Dakar Live TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar muy rek mbégte saa su nekk rekk jàllale information yi nga xamante ne dina soxal lool askan bu Sénégal tey nag ci li ñuy waxtaanee bokk na ci nag kàddu yi nga xamante ni moom Cheikh Ahmed Cissé daal dina koy yëkkati mu daal di jur nag coow ci réew bu Sénégal ku ci nekk jamono ji ak position ba nga xam ne daal di nga koy jël ñeel ci jëmmam joojule bëri na nag ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu diine. fii ci réew mi ku ca nekk itam yaa ngay ŋàññi kàddoom yi nga xam ne daal dina koy yëkkati teg ko rek ci yàlla suñu borom ginnaaw si nag benn rek interview bi mu doon amal daal di fay yëkkati kàddu kàddu yi nga xamante ni tegginewul benn yoon neexul itam ci rek li nga xam ne moom moo di jaaraat ngir daal di koy rek wax ci suñu ab làmmiñ lu ci mënti am rek kàddu yu tegginewul la daal di yëkkati teg ko rek ci yàlla suñu borom lu weesu loolu nag daal dañuy gis ñu ci ci bëri itam di ci addu jamono ji eh, jël défense ngir rek daal di défendre eh, ki nga xamante ni rek moom moo di suñu borom ndéem nag lépp lu nga xamante ni rek am na moom la daal di eh, soob waaye ñi nga xam ne ay jullit lañu ñoom itam jamono ji ña ngay jug bu baax a baax ci mbiru rek ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Ahmed Cissé daal di nañuy gis nag ba ca njëkk ki nga xamante ni moom moo di Mame Makhtar Gueye bu Jamra mu daal def déclaration daal ñaawlu li ni mel waaye tamit daal wax li nga xamante moom moo di ab plainte bu nga xamante ni daal dina koy eh, rek eh, dugal ngir rek kàddu yi nga xam ne eh, Cheikh Ahmed Cissé daal na koy yëkkati ginnaaw si loolee nag mu daal di nangu badge bi nga xamante ni joxoon nañ ko moom mi leen di Cheikh si se di leen fàttali mujjoon naa doon ambassadeur foofe ca Jamra waaye bi la yoon daal dina ci génn ndax daal dinañu nangu li nga xamante ni moom moo di badge bi ba noppi daal di ci teg ab plainte lu weesu loolu itam keneen ku nga xamante ni itam daal dinay plainte rek mu di rek ki nga xamante ni moom moo di rek oustaz maxtar Sarr moom itam daal dinay def ab déclaration daal di ñaawlu fa nga xamante ni fa la defee sortie bi daal di wax yooyu le kaddu waaye tamit daal di ñaawlu bu baax a baax kaddu yi nga xam ne moom la Cheikh Ahmed Cissé euh, daal di yëkkati ba noppi itam mu bëri rek ay révélation yi nga xam ne daal dina ko ci def ba noppitam itam euh, daal di sàkku rek ñu daal di teg loxo Cheikh Ahmed Cissé gannaaw si loole nag moom di oustaz Makhtar Sarr daal dinay dugal ab plainte ak ki uh, ñooñam waaye tamit bokk na ci ay sëriñ daara yu nga xam ne uh, ñoo nekk uh, ci réew mi ñoom itam daal nañu dugal plainte ngir ñu daal di teg loxo ba tey Cheikh Ahmed Cissé jamono ji umma islamique bi yëpp daal dinañuy jug rek di sàkku ngir ju daal di koy teg loxo ndax nag dafa daal di xotti war ma ki nga xamante ni moo ko bind bind lépp lu ci mujj nag moom mi leen di Cheikh Ahmed Cissé daal nay bind ci page Facebook am moom nag ma ngi ca daal di wax daal yàlla suñu borom borom baal ma àq yonent yàlla Muhammad baal ma àq bépp jullit bu yiw bu sell bu baax maa ngi lay jéggalu baal ma àq waaye tamit daal di lim turu Mame Makhtar Gueye Jamra oustaz Makhtar oustaz daal di ci teg nag kàddu yu ñaaw maanaam daal dagg ay saaga jagleel ko oustaz Makhtar Sarr ak Mame gi jambra Jamra mu di saaga yu nga xam ne tegginewul ñu di ci jaar waaye lu ci mënti am loolu mooy euh, kàddu yi ki nga xam ne moom moo di Cheikh Ahmed Cissé ay saaga daal la daal di jagleel ñooñee nga xam ne jamono jii dañoo daal di taxaw ngir diine bi gannaaw saaga yi nag dégg ngeen ko li nga xam ne itam wax na ko ci ne rek moom Mame Makhtar Gueye Jamra oustaz Makhtar lépp lu ngeen mën ci man rek rek euh, def leen ko euh, mbokk yi sant leen bu baax jaajëfal leen jox leen rendez beneen yoon xanaa rek di laaj ndax Cheikh Ahmed Cissé lile bi mu koy bind ci réew bu senegal la nekk am dafa daal di génn ndax ñëpp jàpp nañ ni kàddu yile euh, fasu fasu koo bindee ci réew bu Sénégal xanaa dafa daal di génn réew mi ndax tegginewul benn yoon mu koy teg ci ndoddu ñi nga xam ne sunu ay kilifa lañ rawati nañ di defendre diine gi jaa ngeen jëf